Khalil bi moo nekk quatrième combat ci diggante Ness 2 école de lutte Niakou Rab ak di Jigo école de lutte lu muy si KMB lu si fi at ko pare nga mun ko pare naa mun ko piip diggante Ness numéro 2 moo ñu woon ginnaaw Djigo moo jàkkaaroo ñun léegi jàkkaaroo ñun léegi mu toll nii Djigo moo ñu woon ginnaaw Ness 2 moo ñu woon kanam wóor nañ ko di xaar sëriñ bi ko waxoon ñoom ñoo ngi tuddati aca ñaari mbër ngay leewtoo e eh, Ness 2 ngi cokkaas Ness 2 ngi dem Djigo ngi koy xaar si ñoom ñaar ñëpp suuf la ñu bëgg jëm Zigo ak Ness 2 at bi toogal Zigo ak Ness ñoom ñaar dañu bëgg def defee combat moo ngi koy suq déedéet génn naatal génn na waaye moo ngi dugaat ba léegi eh ay tap tap baa ngi daj laay dina tànk ba Ness 2 dina tànk ba laay lay lalla ay dépp ngay dégg dépp <laughs> tey làmb lii mooy mbirum góor dëgg ñoo ngi xeex ñaari mbër yee ngay raag ñaari mbër yee ngay raag xalil man teemaa jooy day mel ni man lañu dóor ku bañ ku bañ mu may dal ay dépp laay dégg dépp muy safee si man moo ngay dóor ne seen ngay dóor ñàkkuram ngi fayu arbitre toogal wa nga puus Djigo ñaani mbëree ngay bëri xeex li ngeen def ten ku nekk si yéen 300000 mu nekk avance ee eh, Djigo ak Ness numéro 2 école de lutte rab la Ness nekk Djigo nekk école de lutte KMBF ñoo ngi doon xeex arbitre ba am na doo bopp arbitre yow tamit amul doo si loos bañ te ñaari mbëri yéen a ngi bëree li ngi xeex gàcce ngaalaama yéen arbitre baa leen ñoo ngi bëree arbitre yéen nii arbitre yéen <laughs> arbitre yéen nii waaw su ma tey ñoo ngi dégg nga man cimetière ñoo ngi sànni gi arbitre sifflé na diggante ak Djigo Ness 2 moom ngeen moo ngeen lom bu bett li Djigo ngeen moo minti ko laal Djigo dóor na ngeen naat moo koy asare Ness 2 kon jàppare ñaari mbëri da la koy ko bëgg a jël ko doon na koy suuf ah waay Ness dox avertissement dox avertissement dox avertissement avertissement waaw waaw